asalaamaaleykum mbokk yi teel a gaawu ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru tam xarit ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñeent ci gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dëppoo ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru ut ci ñaari junni ak ñaar fukk ak ñaar ñaar fukki fan ak juróom-ñett bokkul ci lim yu fatt yi lim bu rafet la kon tey ci gaaw bi rafet na li ñu ci gën a taamu mooy ku ca watu li ñu ciy teetere wattandiku moom gaawu mooy ku ca sangu wala ku ca fóot ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru nekk nag dees ca yeggale ab sëy dees ca tukki ñaanu bis bi yow yàlla maa ngi lay ñaan nga defal ma làmmiñ wu dëggu ak xol bu laab allahumma inni asaluka lisaanan saadiqa wa qalban salima allahumma inni asaluka lisaanan saadiqa wa qalban bis bi yonent bi salallahu alayhi wa sallam nee na yellul ci jigéen ju gëm yàlla ak bis pénc muy tukki lu toll ne bis ak guddi te àndul ak kudul ku mu araamanteel maanaam koo xam ne mënu koo takk soxna wala mu ànd ak jëkkëram bu dee ko am jëkkër xadis bi muslim moo ko nettali qaala rasulullahi salallahu alayhi wa sallam laa yaxillu limraatin tuminu billahi wal yawmi al axir tusaafiru masirata yawmin wa di mahramin alayha rawahu muslim waxtu julli suba waxtoom dana tàbbi juróomi waxtu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 juróom-benn waxtu yu tegal juróom fukki simili ak juróom-benn di soo juróom-ñaari waxtu yu tegal ñaar fukki simili ak benn yàlla na nu yàlla nangul te nangul leen amin